waxtaanu fajar ak ustaas Alioune Sall bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma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 waaye ba nu waree ba léegi ñu ngi toll ci benn tomb te mat na juróom-ñetti tomb benn tomb boobu moo jëm ci borom bi wax ñu ne bu ngeen wooree ba noppi te jànge ca xiif jànge ca mar ba mokkal xiif walla ngeen mokkal mar rékkuwaay bi ngeen jógee ci koor gi seexlu leen alal judul seen alal waaye seexlu leen deret judul seen deret moo tax borom bi sësale ca wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil ci la ñu nekkoon nag ba démb bi njëkkati jotaay bi ñu tolloon ci alal yi bi sunu borom bëggee sàmm alali xeet wi ba noppi bëgg a sàmm alali nit ku nekk waaw individu bi je pense que noonu la professeur bi yàlla bëggee sàmm alal yi dafa am yu mu tëral mooy ki xamul xaalis te waajuram génn àdduna bàyyil ko fi xaalis nu nuñ koy def walla ku amul xaalis xamul xaalis rek ci boppam ñëwoon na ci buñ koy jox alalam jooju ñu wutal koy seede ginnaaw bi ñu ko nattoo ba xam ne mën na koo yor ginnaaw bi ñu fexe ba lépp luy alal buy génn ñu bind ko moo xam facture la moo xam reçu la moo xam moo xam bi ci tegee borom bi daal di araamal riba te mooy xaalis buy liggéey morom ja xaalis buy liggéey morom ba moom morom ja kullu daynin jarra nafan fa huwa riban loolu la ñoom docteur Abdoulaye Lam di jàngale ci usul yal yàlla sàmm leen ba ci jógee borom bi daal di araamal li ñu tuddee eh, lekk alal nit ñi ci tappale bi muy bi muy sàmm alali nit ñi dafa tere nit di lekk alali nit ni moom ni tappale ci tappale ba ca tegee mu araamal carte mbokk yi may wax ni xoolal ak ni ko pénc mi ñemee ba noppi na yàlla nag mënoonoo tee dem xoolal yii ni ko pénc mi ñemee nga xam ne tomb boo ci dugg rek boo xóotilee ñu defee ni diw ngay wax walla nangam ngay wax wala fii nga jëm ndax lan nun noo ko ñemee noo ko ñemee saa su nekk nag nu xëy ba mu yàgg rek ñu ne diw jógee na fi ñëpp téye si sikkam ne diw man mu tax yooyu borom bi bu ko waxee rek ne taqwa fu mu ko waxee rek ne taqwa foofu la njëkkati woon jataay bi démb doon tàmbali dugg ci atalaabu bil mikyaali wal mizaan wala makaayil wal awzaan mooy ñi ne ci marché bi di jaay ak jënd di jënd ak jaay di peese ci poids ak di natt ci mètre bu ñu la bëggee jaay tissu jël mètre bi donte tissu léegi am na peese bu ñu la bëggee jaay kër natt ko ay mètre bu ñu la bëggee jaay suuf lépp loo xam ne dañ koy natt mbaa ñu koy peser borom bi subhaanahu wa dafa xaraamal ku ko dul jaarle ci yoon mu tudd ko fo atalaaub di peesel nit ki tonnu ceeb bu dem ndaw kundaa nga fexe ba ton boobu nga amaat ca dara defe naa mas naa ko wax ci waxtaani fajar yi sunu mbokk mële faal ca cité tàkk ko dinu ko fàttali ko dinu ko fàttali moo di góorgal xaj màgg jéy kër bañ bayee suñ gerte ka yóbbu ko mbar teg ko ca baskil ba di ko peese fekk ma nga yor jikki ba toog na le noonu dongo yi njàpp ne ñooy dongo yu mag yi ñu toog ne peseur bi ne ko kaay xool mu ne ko lu may xool mu ne ko ah li may peese mu ne ko ah yaa ngi koy peese sa boroom a ngi koy xool man lu ma ciy xool daal ne cel continuer ci jukkim ndeysaan peeseur ba taxaw peeseur ba taxaw ba nit ñëpp jaaxle at mooma la bàyyi peese at mooma la bàyyi peese ma wax la ko tey waaye marché yeeg barab yooyu nit ñi buñ lay jaay saakoy soble wala ñu lay jaay suppame wala ñu lay jaay xeet yu ñu la mën a jaay nit ñi am nañ fit wutal ni fexe ba kott ca dara fexe ba peese bi nga am ca dara contrôle de contrôle de prix bu ñëwee ci bitig yi war a contrôler ndax li ngay peese nun la am déet léeg-léeg am na ñooñ boo jaaree ñoom fenn noo peesee baax na léeg-léeg boo jaar ak ñoom fenn noo peesee baax na du ñëpp nag waaye léeg-léeg ndax noonu fi ne yor nañu bitig ni ñëpp tabarkalla wala wala boog alimentation <laughs> ngeen baal mu ci publicité bi mais c'est normal <laughs> kuy xalam di ca jaayoo kon peese yooyu nga xam ne dem na ba ci ñiy jaay suuf camion suuf ne la nang mi mètre cube la ngay jënd rek ndekke mètre cube yooyu buñ la waxee na nanga mètre cube la am na quelques mètre cube yuy manqué toujours te waa ji di ko def ci poosam nga dem ba boo jëndee sima di tabaxlu waa ji am na fit wu toll ni boo ne ko benn saako bi naa ci am nangami birig mu fexe ba nga am ci nangami birig mu am ca ciment ba wala mu yokk suuf sa allahu akbar roq boo dugg rek ma ngay bax mel ni cin ruq boo dugg rek ñu cay piis mbaa ñu cay natt rek ma ngay bax mel ni cin lu tax mooy nit ñi luñ dugg lu ne jàpp nañ war nañ caa am dara gaa yi jaay njaay yu sew yi ñoom suukar ak i mbokkam nga xam danga nga ñëw ñu jox la mbuus gi nga yóbbu léegi looloo xew est-ce que mbuus googu peese nga ko ba mat sukk kilo suukar wala manqué na ay gramme bu manqué ay garaam bu ëllëgee da nga ko layoo lépp lu ñuy peese tàmbalee ca or ba ca xorom sa lépp lu ñuy peese tàmbalee ci or ba ba ca xorom sa sunu borom dane wa aqimul wazna bil qist allahu akbar bil qist li ngeen di peese na jub xocc ngeen def ko bil qist ci maandu bul jël gramme nit ki waxumala ay ay ay ay kiloom bul jël ay gramme am waxuma la ay kiloom wa aqimul wasna bil qist ñu ne waaw mu ne wala tuxzirul misaan bu leen pertel peese gi mu nga ci suuratu rahmaan yàlla nañ ci àgg ak jàmm ci tafsir waaw soreetuñu ko loolu borom subhaanahu wa ñii nat ak a pesé di jënd ak a jaay daf leen a wàcceel wenn saar spécial wu tudd suuratul mutaffifiin waaw al mutaffifuuna waaw dooro ñan ñooy al mutaffifuun al mutaffifuun sunu borom moo nu ko firil daf ne waylun lil mutaffifiin ñu ne ko mutaffifuun yi mooy la mu ne mooy allazina istaktaalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun ñoo ñooy mutaffifuuna ndax nit ñaar rek lay peesel ala nnaasi waaw walla aw wazanuuhum ala nnaasi mooy li ngay peese ci ñoom la jëm wala ci ñoom la jógee ngeen baal ma li ngay peese ci ñoom la jóge dañoo ñëw di la jaay ceeb walla ñu lay jaay gerte wala ñu lay jaay dugub waaw fun ñu peese ko ba ma sëkk su fekkee ci kiy jaay la jóge nag jëm ci client bi si siruun yàlla nee na yëg na ko yàlla nee na yëg na ci penc mi ñoo xam ne nii lañuy def boo ñëwee indi ceeb di leen ko jaay mbaa gerte mbaa dugub mbaa gajaa nga wala wala wala waaw imaam Abdoulaye Ndaw mottileel ma ko dégg nga yastawfuun day mat sëkk waaye su fekkee yaa ñëw nag ceeb boobu nga jaayoon di ko jëndaat yux siruun ñu fexe ba am ca dara waaw jamono yi peese yi di xew yi ma doon wax sànq ci góor gi Alaaji Màgg Jéeg ñi mel ni ñoom dañu daan jël benn peseur mu ñëw di peser gerte gi nga ñëw not sa gerte baa nga peser mu fay la waaw waa ji yor soixante millions jënde lépp gerte jënde lépp gerte waaw ñi ñiy roñ gerte gi ñëw roñ soixante millions li mu ko jënde woon mu desal trois million trois millions yooyu fu mu ko jëlee trois millions yooyu mu des wala deux million fu mu ko jëlee moo tax loolu bu dee xew ci ay usine usine bu muy xew yëgal ne bu ginnaaw subaa mu daanu wax la ko tey usine bu muy xew usine boo ci dégg mooy def dara ba mu yàgg mu ne kërëj am na lu xew ndax sunu boroom moo déclaré ger képp kuy foc yëfi nit ñi maa la ko wax de usine boo ci dégg nga jékki-jékki dégg ne doxatul wala gaayaa ngay gerew walla amatuñ seen pay walla tabarkalla ñu ngay grève de faim wala wala wala jorul dem fenn bul sori boroom bi moo wax ne wa aqimul wazn wax ne wa aqimul wazn bil qisti wala walla tuxsirul mizaan wax ne waylun lil mutaffifin waaw waylun lil mu mutaffifin mbokk yi nii nu yàlla jàngale koorde yi su mokkoon buñ ci génnee gën ci xeet yi su mokkoon buñ ci génnee bokk ci ñi gën ci xeet yi su mokkut nag dañuy coow rek sunu mbaax lépp nekk ci sunu làmmiñ waaye du nekk ci sunu jëf yàlla nu yàlla yërëm sunu borom ne alaa yazunnu ulaayika annahum ndax ñooñu yaakaaruñoo dekki <laughs> yàlla waxoon nag ndax ñooñu gëmuñu dekki déedéet ndax ñooñu yaakaaruñoo dekki maanaam ku gëm dekki moom beneen affaire la waaye même ki yaakaar dekki même ki yaakaar dekki sunu directeur Omar Diop Fall yàlla na ko yàlla yokk wér daana wax ne nit ñi moom wóor na ko ne gëm nañ dee lim yaakaar kay mooy dekk lañ gëmut ma ne ko yàlla moom nee na sax jort rek jort na da nga dekki képp jort na da nga dekki képp waaye mbokk yi ku dëkk ak màngo mbaa dëkk ak gerte mbaa nga dëkk ak lu ñuy ji war nga caa gëmee dekki wala sax ngay nelaw ak yeewu wala ngay nelaw ak yow war nga gëm dekki alaa yadunnu ulaayika annahum mab'uthun ndax ñii yaakaaruñu ñu dekkal leen li yawmin azim dekkal leen ci bis bu rëy yawmun azim bis bu rëy bis boo xam ne bii moo gën a rëy coupe d'Afrique bis boo xam moo gën a rëy coupe du monde bis boo xam ne moo gën a arafa la yowmul xajjil akbar ndax ñetti bés yi ma wax ñetti bés yi ma wax mooy coupe d'Afrique bii ñu demut ak ñoo bari la muy xumb xumb ñi demut ak ñoo bari waaw rawatina ba Égypte di di football terrain ba fees dell waaye am na ñu demut même ca Égypte googee am na ñu demul terrain waaw moo tax moom du yow ma azim coupe du monde li muy xumb xumb musuma caa teew tëbër naa ci moroom <laughs> li muy xumb xumb coupe du monde mosuma caa teew tëbër naa ci morom maa la ko wax de xajjul baytilaayil xaraam yowmul xajjul akbar ak xumb moo gën a xumb xumb yi ngay dégg yépp waaye am na ñu demit nogay mosu caa teew waaw nogay mosu caa teew li muy xumb xumb tëbër na ci morom waaw bàyyi mbay mii sama papa mosu caa teew yaa astu ndeysaan ba ni mu génn àdduna mosu caa teew yal na ko yàlla yërëm ak ñoo bëri ñu ci teewut waaye gis nga yawmun azim moom allahu akbar allahu akbar yawmun azim ña demoon coupe d'Afrique ña demoon coupe du monde ña demoon ci aj ga ak ñu dimut xale yi waaw bébé yi papaay bébé yi tàntaay bébé yi seeni yaay directeurs yi ministres yi députés yi gouverneurs yi préfet yi sous-préfet yi ustaas yi ilimaan yi aawa yi ñaareel yi ñetteel yi ak topp yi njëkk yi goro yi mottali leen lim bi mottali leen lim man ma yem foofu li yawmin azim yàlla nee na ñiy muy manqué wala ñuy natt muy manqué wala luñ def kopp koppal ci yëfi jàmbur alaa yazunnu ulaayika annahum mabuuthun xanaa ñooñu yaakaaru ñoo dekki li yawmin azim wuy ji ci bis bu rëy ba bis ban yawma yaquumu nnaasu allahu akbar yawma yaquumu nnaasu li rabbil aalamiina yawma yaquumu nnaasu li rabbil aalamiina bis bi nit ñëpp di jóg yaqumu naasu fii waxul yaqumul muminuuna waxul muslimuuna waxul benn group ci tawaif yi déedéet def ne yow ma yaqumu daat cee teg annaasu annaasu nga xam ne tabarkàlla président yi ci penc mi yëpp ñu ngi dugg ci annaasu gouverneur yi dugg ci ni ma ko junjee léegi yow ma yaqumu naasu lu tax ñuy jóg li rabbil aalamiina jóg gi jógaluñu kenn rabbul alamina tax ñuy jóg waaw ku ne ci ñun mu audité la boppam te yëf ya gaaw lool balaa tàkkusaanu jot ñu noppi maa la ko wax te bu ñëpp jógee la rabbil alamina dana laaj nit sa dund gi ci loo ko jeexal sa ndaw gi ci loo ko ràppal waaye sa alal ba kay foo ko doon jëlee yow noo doon def ba am pourquoi nga ëpp ëppale Sénégalais yi yow dégg naa amoon nga milliard yow noo def ba am milliard ak milliard ni mu jafee am yàgg yàlla yàgg yàlla ba nga ne wuyu su ma yëgoon cinquante mille duma ko am waaw mooy li yox ndax yëg nga ne cinquante mille sàngam barab sàngam ko jële woon sa cinq mille ba nga jële woon barab sàngam nag sa dix mille ya nàngam nag rekk tabarkal la boo layee ba noppi mu la ne léegi loolu nga amoon nag ko doon doon dugal yow ma yaqumu naasu li rabbil aalamiina mbokk yi bi ñëwee di ñu jàngal koor dafa bëggoon bu nu waree nu mën a woor ci alal li jàmbur sunu borom di tëral ba agsi ci ni muy sàmme alalu xeet wi ba agsi ci ñi nga xam ne ñooy peese ka mu wax wax jure jooju ci ñoom jër ngeen jëf ci ànd beeg si defem seen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi ñoo ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ak seen fi war a te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i bëgg la na firiñ fàncal xibaar ci waa firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor yi jaajëfal leen ñoom ñëpp ñu suñu sponsor yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara ganaan daloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu